maa ngi jàngat ya waaw su ko defee man moom yàlla baax na maa ngi sant yàlla bu wér avec moom yaa kontaan naa ta gën yàlla sant bu wér ndax gis nga mbokki Sénégal eh bien maa ngi wax yéen ci dëkk boo xam ne ñu naan ko Ouganda Ouganda laa nekk eh bien difil préparé loo xam ne eh bien bës bu sottee ngeen xam ko ndax léegi yëg ngeen ko yëg ngeen ne journaliste lu gën a gaaw gaaw gaaw eh def nañ ko mooy waxoon nañ nekk sama diggante président Wanda ratax maa ngi waxtaan ak ay chinois maa ngi waxtaan ak ay réewu yu bëri yoo xam ne eh ñu ngi sama ginnaaw ci li may waaj li may waaj nag dina ump Sénégal waaye jàmm la rek bu soobee yàlla parce que kenn ku nekk lii nga xam ne eh bien maa ngi koy dégg ñu koy wax fan yii yëpp di wax eh bien Nelson Mandela man Nelson Mandela. bu dul sax eh nit koo xam ne nekk na Afrique man bu bu bu génnee àdduna dañu koy jaale population africaine yëpp waaye liñ ciy bëgg rax yëpp di ci boole yoo xam ne eh bien bokku ci naan eh bien waroon na mel na kon Nelson Mandela eh bien Wade li mu bëggoon mooy lii Wade par là par là man xëccoo man xam naa eh bien lan laa mérité Afrique te yàggul rek. matul sax ñaari at am na ñu doon jéem a dox pour sama diggante Nelson Mandela ma xool ndax maa koy fekki wala moo may fekk si. allah waatu njaag oo daara waatu njaag yëg ko mujj sangum xeer yaa def plan Reva yaa fi plan takkal. kon yaa def aéroport bu bees bee duru rappayage bu bees bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf oh, yow la loolu mooy wane ne eh bien nekk mun nga nekk Mandela si sa dëkk. ndax lii nga xam ne moom la Adja Xaar Mbay ma jaaga way mais samay jaar-jaar la parce que Sénégal bu ñu wax ne man damay xëccoo man panafricaniste laa la moso doon waaye li tax dewu ma yéen am nga lu leen doy ndax seen président baa ngi nii dem fa jëlul parole te man su ma demoon tey dinaa fexe ba bokk ci président yi nga xam ne dañuy jël kàddu ndax man moo ma nekk un pays boo xam ne île de Gorée fii la nekk la dignité de de de l'humanité de l'Afrique fii la nekk Sénégal et puis li gën a grave mooy il faut que les Sénégalais reconnaissent que nous sommes les pays le Sénégal fait partie des pays qui bien eh bien ñoo njëkk a médiatiser le problème de Nelson Mandela par le biais eh bien du chanteur Youssou Ndour nga xam ne way na Nelson Mandela xale yi xam ko ñu bëri xam histoire Nelson Mandela à travers Youssou Ndour waaye mais vous savez que ne Nelson Mandela man nekk naa président tourma dere kon kay mag moom niroo nañ eh bien am naa bëtt naa fi ay teen def ko forage. yaa fi andi NEPAD. waaw mooy NEPAD c' est. nañ la ci réew mi ndax askan bi. a Sénégal yaay sunu Mandela. waaw loolu eh bien maa ngi ciy sant yàlla li ci gën a garaaw mooy yéen autoroute a péage bii maa ko xotti jël jëm ñaa jóg eh bien Anne Maris xotti ko ba booy dem Thiès da ngay xef ak xippi yegg waaw kon du ma Nelson Mandela Sénégal am na ma fi def tunnel bii nga xam ne eh bien moo jógee bi kan moo ko bët. yow Daara wax di jaag yaa ko fi mbët. plan bi nga xam ne bien mooy plan REVA béy leen ci tool yi naan ci béy ci gerte gi lekk ci me euh, euh, ci ci gàncax gi kan moo ko def plan REVA. yow a Ndiak Fara eh Wade kan moo fexe ba mu am ay cité góor géeg yu bëri yoo xam ne eh bien def naa ko. Fara Wade Ndiak yaa sagal réew mi. est ce que bi dama fekk Abdou Diouf toog ma daa di jël xeer wala daa ko fay tuur deret pour jël gouvernement bi amul. boobu ba léegi eh, defoo fu lu ñaaw. ci waaw bi may génn tamit ba ngeen ma toroxalee bien na ma da ngay génn bi may génn bien ndax dama fi fi dara. waaw kon eh je pense que ne kenn ku nekk na nga xool li nga mérite dans ce nag moo xëccoo ay Nelson Mandela yooyu moo xam ndax moom bu fekkee ne dafay xëccoo moo xam waaye man def naa loo xam ne bien tey amul dara lu mel ko rendre hommage na ndax su ko defulee day mel ne bien dama soxor. eh bien Afrique. Sunday afternoon. Afrique, eh bien, des Afrique. Went to see my brother. Afrique que je mérite aujourd'hui d'atteindre un grade Treated me like Vous n'avez plus quelqu'un, eh bien, qui vous ressemble à Nelson Mandela, à part moi. Nelson Mandela était âgé de 95 ans. Eh bien, Mohamed Abdoulaye Wade, je suis âgé de 10 c'est important. Eh bien, li ci am solo mooy ngeen xam ne. waaw. ni ñu koy tàggee ci ay maam di ko ko jaay ëllëg di ko kon man tamit mérite naa loolu kenn ku nekk ak sa Mandela moom ak Mandela yàlla ko yàlla defal jàmm moom laa koy ñaanal te yëpp yàlla dina ko defal jàmm ndax ñëpp ku ñu tur ñaanal am waaye man de wax dëgg yàlla rek bëgg naa tamit ngeen fàttali ñu ko man maay farawaan di seen qualité. am seen matelas nag ku ko ko doon boo téye doomu jàmbur da nga koy bàyyi mu yow kay jox nañ la sept ans nga ne bëggoo cinq ans nga bëgg bàyyi doomu jàmbur boo koy defee ngeen di doon Mandela sax loolu rek la Macky Sall bu bëggee nekk Mandela na bàyyi Karim bàyyi dëtt na politique yi def cinq ans yi mu wax nekk Mandela loolu rek la waaye man de.